ay mhm. ayca uh, fidèles téléspectateurs ñu tàmbali ak uh, Walf Quotidien Walf Quotidien def à sa une uh, Bougane claque la porte les couleurs dynamite Yewwi Askan Wi donc mu mel ni Aliou Sow ni ki démb gis nañ ko moom Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp def benn conférence de presse di wane di xam ne ni que couleurs yi ak logo yi nga xamante ni jamono ji moo tënk yeewi Askan Wi moom d'accordu ci ba tax na daal dina mujjee faf yeeweeku ci boobu la coalition moom Bougane Gueye Dany vrai que euh, pratiquement tous les journaux Euh, de ce matin. Mhm. Euh, parle justement donc de euh, du du du du du départ. Mhm. ou du claquage de porte de de de Bougane Gueye Dany mhm. parce que sans doute ça doit être et ça devient de plus en plus donc un élément important. dans donc donc donc donc sur l'échiquier politique sénégalais. donc fait que effectivement on peut maintenant à partir de de dorénavant constater que. Bougane Gueye Dany mi ngi ci biir. fi muy leen journaux yi. journaux yi tout le monde en parle même le mandat sax ci loolu dikk. def quelques jours après le lancement de Yewwi Askan Wi Bougane tourne le dos à la coalition. eh ben Bougane tourne le dos la à la coalition les couleurs euh, aussi dynamite Yewwi Askan Wi euh, claque la porte Walf Quotidien le mandat euh, eh ben Vox Populi. Mhm. tout le monde en parle tey jii. ci mhm. ci de Bougane Gueye Dany encore une fois ça veut dire que am na solo trop mhm. parce que sinon duñ ci wax. fii ku amul solo duñu wax ci ah donc donc donc ça veut dire que euh, il devient de plus en plus important et pesant ci échiquier politique bi. Mhm. donc donc donc loolu loolu déjà bëggoon naa ñu waxtaan ci. et que euh, est-ce que vrai véritablement aujourd'hui sénégalais yi dañu commencer di bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a jeunes les jeunes hommes politiques yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. Mhm. te nga xam ne euh, euh, obligatoirement ñoom ñoo yor. ñoom ñoo yor euh, euh, kii wu réew mi avenir wu réew mi. Mhm. donc donc parce que c'est c'est évident euh, qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Mhm. Euh, ak ak ak Yewwi Askan Wi voilà euh, Yewwi Askan Wi une coalition de partis politiques boo xam ne mu ngi exister il y a peu de temps évidemment ces partis existent depuis longtemps ay quelques mouvements euh, Taxawu Ndakaaru donc le le parti pur hein, de de de de de, de Serigne Mansour. Serigne Moustapha Sy donc mhm. Serigne Moustapha Sy plutôt hein. Serigne Moustapha Sy. Moustachidine wala Moustachidati. et ben et puis l'autre aussi. aussi l'autre partie euh, donc de de le, le troisième c'est Euh, c'est c'est le Pastef de Ousmane Sonko. Mhm. donc ça fait que ñetti parti yooyu ñoom ñoo gisee ci seen biir. Mhm. créer une coalition indi ay yeneen i nit teg ay yeneen i nit ak yeneen i leader ak yeneen i euh, dégg nga euh, des mouvements politiques. Mhm. boole leen ci biir tënk leen ñëw bis jot mu ne leen kaay leen dafa am association de de de une coalition de parti bu ñuy taxawal par coalition bi nii la demee problème bi moom mooy c'est bien de faire des coalitions mais jour bi ñuy créer affaire bi. bi choisir euh, euh, yoonu parti bi di choisir mhm. euh, logo parti bi di choisir même même pratiquement les statuts comment doit fonctionner mhm. la coalition les statuts de la coalition mhm. jour boobu ñu koy def ñetti ñetti nit kese ñoom ñoo ko def muy Khalifa Sall le représentant du PUR et puis le patron du PASTEF Ousmane Sonko donc ñetti ñooñu ñoom ñoo lijjanti mbir effectivement ñi bari nag topp ci seen ginnaaw bi ñu ñëwee sur place ci ci ndaje boobu ñu amoon fii ci VDN bi eh bi ñu dajee dañu ne eh, eh sama gars kayit yaa ngi nii defar nañu une coalition couleur bi nii la euh, mhm. parti euh, euh, statut yi nii lay doxee yoon bi nii lay demee fonctionnement même la présidence tournante nii lay demee ñun ñett ñoom ñooy chef yi ñun ñooy patron yi ñooy diriger parti ñun ñooy diriger coalition bi mhm. yeneen yi si yéen yi si topp nag nga xam ne c'est une vingtaine d'autres partis politiques et de mouvements topp leen suñu ginnaaw te ngeen noppi ne muut et eh ben wala ngeen ne mott mhm. donc forcément loolu am na ñoo xam ne nangu nañ ko bi ñu yegsee ci coalition bi jour boobu la ñuy doog xam lépp Mm-hmm. waaye bi ñu yegsee am ñoo xam ne nangu nañ. Mm-hmm. am ñoo xam ne nanguwuñu kenn ki fës na muy Bougane Gueye Dany mm-hmm. keneen ki c'est le le monsieur du qui qui était euh, qui euh, mooy euh, il s'appelle encore celui qui était euh, pratiquement le vice-président du Rewmi de Idrissa euh, Seck Déthié Fall ci mbir mi ñeneen ñi nag comme ay al toppe kese la ñu eh bien ils ont préféré suivre mais boo gisee tey ma bëgg a insister ci wax ci wax ci mbir mi. Mhm. c'est parce que dama bëgg sénégalais yi se rendre compte d'un fait réel boo xam ne moom moo am ci réew mi. Mhm. mais en réalité comme j'ai l'habitude de le dire dëkk bi politique ni ñuy façon ni ñuy politiquer. Mhm. ce ce n'est pas bon ce n'est pas bon je l'ai surdéploré pourquoi je dis ce n'est pas bon parce que réalité on use de la démocratie dans ce pays-là mais n'est pas intrinsèquement. démocrate sénégalais yi en général e fii nga koy gisee li ñuy yàq waa coalition Benno Bokk Yaakaar li ñuy yàq Macky Sall li nekkoon ci Benno Siggil Sénégal tey moom moo nekk nii nii nii nii ci coalition bu bees bi ñu naan Yewwi Askan Wi parce que finalement rappelez-vous juste une chose et je voudrais que vous m'écoutiez chers Sénégalais parce que dafa am lu tax may insister ci wax bi ndax dafa am foo xam ne dama fa bëgg yóbbu vous êtes des gens intelligents mhm. dafa am seen xel pour ngeen mën ci xalaat parce que am na yoo xam ne bu ñu deful attention dinañu échapper mooy cette démocratie qu'on di que mi ngi avancer ci réew mi avancer wul parce que ceux qui dirigent le pays ne sont pas véritablement des démocrates. Mm-hmm. lu tax moo wax loolu. damay dellu ginnaaw tuuti il y a quelque temps quelque temps quelques années en arrière bi Ablaye Wade doon waaj a jeexal nguur mi. Mm-hmm. nguur gi dafa amoon benn coalition bu existé woon bu tuddoon Benno Siggil Sénégal Benno Siggil Sénégal boobu. ñetti wala ñeenti parti politique ñoo taxawoon comme li xew léegi nii ak yeewu askan wi créé woon ko muy l'AFP de Moussa muy le parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng muy la LDMPT Ligue euh, démocratique mouvement pour le parti du travail de euh, euh, Bathily. Mm -hmm. je ne sais plus comment il s'appelle Bathily. Abdoulaye Bathily Abdoulaye et le PIT de ab feu euh, euh, machin Dansokho comment il s'appelle encore Amath Dansokho. Amath Dansokho. Mm. donc ñeenti ñooñu ñoo créé woon loolu avec une trentaine d'autres parti politique ñu topp seen ginnaaw ran ci ñoom fexe ba daaneel Abdoulaye Wade tey téye nguur gi te gis ngeen niñ ko téyee mhm. te bi ñuy créé Benno Siggil Sénégal dafa amoon kenn koo xam ne ñoom dañ ko xeeboon Macky Sall Macky Sall ba demoon sax ne ko fii ñaari candidat kese ñoo mën a nekk ci biir Benno Sénégal Benno Siggil Sénégal yow da ngay topp ci seen suñu ginnaaw yow mhm. yow Macky Sall ak Cheikh Bamba Dièye parce que yéen ñaar ñii da ngeen dëgër bopp mhm. kon da di topp parce que euh, euh, euh, Moustapha Niass ak Ousmane Tanor Dieng rek war a remplacer Abdoulaye Wade kenn su ñoom ñaar. ñu xool nu ñu koy exercer yéen amu leen dara loo leen wax tekkaluwee leen dara topp leen suñu ginnaaw Cheikh Bamba na ñett. Mhm. Macky Sall na ñett ne ñoom du génn Benno Siggil Sénégal waaye dina ko ne di ñafe ci biir Benno Siggil Sénégal pour nekk candidat moom parce que candidature yi ñu ko limiter ci ñaari nit soi-disant Ousmane Tanor Dieng ak ak ak ak ak Moustapha Niass. Mhm. ñu buux buux buux ba Macky Sall prof forcé ne ana fu ñu mujjee ñu yaakaaroon ne ñoom ñoo war a nekk président de la république. ñoo war a jiite Sénégal ñooñu tey ñoo topp si ginnaaw Macky mi nga xam ne ñoom dañ ko doon tam dëmm ci biir Benno Siggil Sénégal. Mhm. kon fii yàlla mooy dogal te lu yàlla signé kenn du ko mën a dindi trace lay doon a jamais. Mhm. kon nañu bàyyi yii ñuy def jikko yi da ngay gis ni jikko yi jeexagul ba tey loolu moo xew tey ci yeewu askan wi. Mhm. yeewu askan wi ñoom dañu ne ñaa nit a contrôler réew mi après Macky Sall muy Ousmane wala Khalifa Sall wala pur éventuellement. mais euh, Aliou Aliou Sow euh, Bougane Gueye Dany tamit bu ñu waxantee dëgg il a rejoint tardivement cette coalition parce que moom ba ñu ne ginnaaw suba la je pense la ñuy lancé officiellement la ñëw nekk que finalement mouvement am mandaté nañ ko est-ce que bu ñu ko mandaté woon aussi euh, ca ca ca ba ñuy soog a tegal li nga xamante ne moo di idée bi duñ ko boole ci instance de décision yi. mais lan la ñetti une semaine ñetti fan ñeenti fan loolu du si lan loolu du jour bi ñu def coalition bi jour boobu laa la ne ñoom. Mhm. si la ñu indi logo yi indi euh, turu parti bi indi couleur yi indi même statut yi nga xam ne mooy organiser la coalition Yewwi Askan Wi mhm. maanaam yow da ñëw rek nga dugg wala nga génn. même si c'était sous réserve. mais man xaw ma kooku kooku ça ne concerne que Bougane Gueye moi je dis juste man fi may bëgg a insister ci yi moom mooy ñu xam ne démocratie amul ci réew mi. ñi nekk ci nguur gi do ko doxalee ni ñuy doxal nii bés bu ñu nekkee ci ñi nekk ci opposition bi. ils feront la même chose et je remarque que ci dirigeants yi ñu jëlee fi Ablaye Wade c' est toujours la même chose et que sa mburu foofu que euh, farine. amul Sénégal jamono ji koo fal mu ne bennoo la tudd ak di yéeg su ñi nekkul ci càcc ñi ñu ngi luubal ñi ñu ngi def lu leen neex ñi ñu ngi diriger ne keneen a ngi defee lu neex mhm. ci Bougane Gueye Dany laay ñëw mooy moom bien vrai que ay nawleem la fa fekk tardé na tardé wul mais yéen ñëpp bu fekkee Sénégal jëm kanam moo leen yëkkati mhm. changer démocratie changer ni nguur gi di ni ñuy doxalee mhm. est-ce que jaroon na yenn yi benn laaj baa ngi noonu deuxième bi mooy que ay affaire de couleur lii la ñu doxalee couleur jarul dem dañu waxante dëgg bu fekkee tamit. Hmm. yow déjà. Hmm. ñi fa nekk ñoo la ëpp doole ñoo la ëpp mbooloo ñoo la ëpp lépp. jarul yoo lekk di dem toppal seen. mënoo wax ñoom ñëpp mais nag Fatima couleur dafa am solo. ci ci parti aussi couleur dafa am solo. Hmm. am nga ñoo parti socialiste euh, euh, euh, vert la woon. Khalifa ba pare am na leneen loo wax am solo da nga ne couleur kese du couleur kese. du couleur kese. statut yi organisé. coalition bi dañ ko bind ba pare. mais ñi ci ànd nag. non dama ñi si ànd mais ñi si ànd dañuy ñoom dañu teew rek ñi si daan ñoom ñoo xam lan moo tax ñu dugg si parce que ñi si ànd ñëw va y ñëw fekkee mbir mi jour bi ñuy def coalition bi jour bi ñuy def dajaloo bi jour boobu lañu ñëw tegal leen ne leen lii mooy couleur bi. nii lay parti bi di fonctionner lii mooy organisation bi statut nii lay demee da ñëw dugg par exemple benn exemple bu xaw te ñett rek ñoo am droit di tourner entre ñoom ci seen biir moom mooy patron wu parti PUR. patron wu Pastef ak patron wu taxawu Dakar. ñeneen ñi si des ñëpp ñoom dañuy topp ci seen ginnaaw te élection bés bu naree am local képp koo xam ne danga nekk ci say béréb te nga bokk ci parti bi nekk fa maire kenn du la fa dindi da am droit ñëpp ñëpp ñu nekk ci seen biir ñëw àndaat ak yow kon ñeneen ñi doo a ñëw am ay ambition pour seeni gox ñoom bu ñu bokkee biir yeewi yeewi yeewi askan wi bu ñu fa bokkee am. Euh, sacré Mermoz Sacré-Cœur. Mhm. kenn amul droit jàkkaarloog Barthélémy Dias. ngeen li ma wax bu baax wala déggu leen ko. Mhm. parce que dé parce que amu leen droit parce que sacré yi moo wax loolu ci biir. ba pare présidence bi ñiy jiite coalition bi ñett ñooñu kese ñoo am di tourner entre ñoom ñeneen ñi tekkiwuñu dara mais on est dans Sénégal. Mm. lii mooy ban façon est-ce que yéen da ngeen a wax ñu léegi ñun Sénégal ñi ko war a jiite ñu war a jëlee fi Macky Sall remplacer Macky Sall kon ne di dérouler ñooñu ñetti kese la ñu war a doon muy Khalifa Sall Ousmane Sonko. ak mhm. waa PUR. parce que Aliou Sow waa Benno ñu ngi leen di taxé ñoo xamante ne dañuy tàmmante dëmm ak lekkante seen biir mais démb gis nañ Bougane Gueye Dany tamit il les a traités de dëmm wax ni phrase bi normalement sénégalais di ko gis ñoom li ñuy ŋàññ ci Euh, pouvoir bi mu à vrai dire moo ne ci ñoom xanaa déglu li ma leen wax. man li may wax du dañ te déwén di ngeen ñëwaat toogaat fii waxaat ma ko. daaw am na yu ma fa wax gis neen ko ba ren daawaati jéeg c'est pareil je combat cela depuis des années. Mhm. yaa ngi dégg 2007 ba tey maa ngi wax ci Sénégal. dama ne fii nii dëkk bi c'est des pays c'est un pays d'hypocrite. Mhm. nit ñi du ñu waxante dëgg dañuy tamante dëmm di jaarante ay effet suuf di tibbante ay tànk Sénégal taxu leen jóg seen bopp moo leen tax a jóg. ce mhm. pays yéen xanaa leen li ñuy wax yéen nañu dem. beneen leen di seen bopp dëkk bi du ay nit yu baax ñoo fi nekk kilifa yi fi nekkoon doon yu baax tal yu ñuy jox yépp kenn defu ko c'est tous des hypocrites bu ñu ko doon def kilifa yu baax yi fi nekkoon ci réew mi bu ñu fi ne li ñu li ñu tettal muy 50 ans 100 ans 70 ci ginnaaw ñu nekk jaar fi kilifa bu baax bu nekk jaar fi bu ñu leen doon topp kon kenn du ko waxati kon Sénégal naat na 16 millions de personnes mun nañ leen dundal waaye dëkk ñoo téye dëkk bi yor seen i milliards yor i millions yor suuf yi ils se changent entre eux ñoom dañuy changé de ci seen biir. Mhm. ñoom ñëpp a ay sàcc lañu. ku toog c'est tous pareil qui c'est un problème sa problème delloo wax xaalisu Sénégal yow yaay amaat droit ñëw taxaw nit ñi di tàccu nit ñu baax ñi gars yi faale wuñu leen. nit ñu jub ñi gars yi faale leen nit ñu faale moom mooy sàcckat yi la ñu faale waxat euh, triant yi ak tekkatu di lii. Mhm. ce pays va mal ce pays foo ñu raxas ko et du raxas nii raxas simple c'est du raxas au karcher ku toog daal ci jaww gisee man dama am lu ma naqari. Eh, ah. man mënu waxee neneen. Mm. man mënu waxee neneen ah noonu ay sàcc ñoo ah, dafa doy waar parce que les uh-huh. toujours entre di di uh-huh. seen uh-huh. mais mais ñii xanaa expérience benn aussi gis Sénégal waroon na jox. yooyu askan wi expérience. Mm-hmm. ba ñu sax du changé doxalee neneen. Mm-hmm. waaye nee ñoom ñett rek ñoom buggaan bokkuñu te pourtant euh, soppite est que euh, Bougane tamit euh, deful erreur d'une part parce que euh, une semaine avant moom muy rejoindre kii bi moom dafa teg coalition moom tamit dafa dem waxtaan a ñeneen ay yeneen yeneen yeneen parti yeneen mouvement def benn coalition bu mag moom tamit bala muy rejoindre fële cest à bu defee loolu bëgg dem fële négocier pour pour kontam sax day day jafe si moom parce que tamit am nañu peut-être ñee yaakaar bu ñu am parce que ñeele yegoon nañu coalition bële yëgoon nañu ñële ñu ngi yeewu askan wi ñu ngi waxtaan seen biir. ñu ñu ñu ne Bougane la ñuy dem waxtaan ba ba tënk ba def seen coalition. après loolu la ñu mais mais loolu. loolu tamit du ne du du Bougane du nekk à l'aise peut-être bu demee foofu. peut-être man pour man affaire couleur wala yenn kii xëy na sax yi nga mujj wax noonu ni que ni présidence bi dafay tourner si ñett ñooñu rek xëy na lool sax alibi la mais. affaire bi loolu c'est une réalité. non non boo xam ne ñetti nit kese ci coalition bi ñoo am droit di tourner entre ñoom ci présidence yi maanaam xam nga yow lan non non dama bëgg nga dem xoolaat li xewoon benn sigil Sénégal mm-hmm. c'est exactement la même chose ñooñu ñooñu ñooñu ñoon Macky Sall dañu bëggoon Macky topp seen ginnaaw mm-hmm. waaw tey jii nii bu Bougane Gueye dañu nekkee président de la République nag élection am mu dem nekk président la République ñoom la mujjee def est-ce ñoom Moussa Niass ñoom Moussa ñoom Tanor Dieng bëgguñu woon Macky Sall nekk ci biir euh, euh, benno bi ba pare day nekk candidat dañu bëggoon Macky Sall topp si seen ginnaaw euh, kii Moustapha Niass wala wala wala Ousmane mm-hmm. nekk président mm-hmm. tey jii ñoom loolu lañ bëgg parce que tey jii ñu koy defee nii mooy bu élection présidentielle amee xam nga lan moo nar a xew mm-hmm. moom mooy ñoom ñooy jiite léegi bu ñu demee ñoom Bougane bu génnee léegi yàlla ne Bougane nekk président la République ah. ñoom la lay def muñ jiitee gagné paase finalement mais Moussa Moussa Niass man su ma ko xoolee nii. Mm. man maa ngi fàttali ko man ci séminaire yi Benno Siggil Sénégal yi amoon hôtel Ngor Jaaraama j'étais là-bas dama daan ñëw weer trois jours laa ñëw demaat dem sama liggéey France. Mm-hmm. di leen xool di leen seetaan bu maa ngi jàngat Sénégal xam na la ñoo def dañu ne Macky Sall yow doo nekk doo fi nekk candidat. Mm. da ngay topp suñu ginnaaw Cheikh Bamba Dièye yaa may dégg fi nekk candidat da ngay suñu ginnaaw. Mm-hmm. ñu ne léegi ñu def finalement ñu tas Cheikh Bamba Dièye dem nekk candidat Macky Sall nekk candidat mais yàlla yàlla ana ana ñu leen wax Macky Sall du nekk candidat tey ñoo topp ci ginnaawam ñu leen di def président assemblée nationale ñuy jooy. Mhm. ayca yéeme na loolu Aliou Sow et dites la vérité au pays. hypocrisie boobu sax les gens sont affamés. même temps am na lu fa xew. Mhm. Mhm. am na lu fa xew. ils ont 6 milliards ñu leen jox 1 milliard 500. waay xale yaa ngi bëgg a dee. nit ñi dañu famille famille dañu am ay ay seen fibrome yooyu mënuñu leen faj gratuitement. dans ce pays là. et vous avez bêtise. ayca Aliou Sow ci bêtise yooyu sax mu mel ni. loolu la réew mi nag réew mi ñoo ko bokk. doy na waar Aliou Sow ñoo ko bokk te bañu ci dara. ayca donc ki changement boobu sax Aliou Sow. parce que vous êtes des ah, sama lii sama xarit bi kaay ñu dem ci le mandat donc le mandat dikk na ci kàddu yi nga xamante ni professeur Seydi yëkkati na ko donc moom it mu mel ni jamono ji mer na ba futt ci ñi nga xamante ni dañuy am une certaine réticence ñeel vaccin yi nga xamante ne ñu ngi koy wax parce que xamle na ni que sur trois cent vingt et un cent quatre vingt dix neuf soit quatre vingt treize pour cent n'étaient pas euh, te ñi nga xamante ne dañu am réticence jamono ji mën nañ leen jàppee ay criminels. mais bien sûr que si bien sûr parce que vaccin yi va ñi mhm. vacciné wu. ñi vacciné wu mhm. ñi ñoo gën a mën a dëkku feebar bi donc ñëpp ñuy wax ni dañu mais xam nga ni professeur Seydi c'est un monsieur quand même man man man tey. man su su ma jiite woon réew man. Mhm. man professeur Seydi laay def ministre de la santé. Mhm. professeur Seydi laay def ministre de la santé te du ma bàyyi ginnaaw euh, ñoom ñoom professeur Bousso. Mhm. ak euh, euh, le monsieur de CRF là ki nekk ki nekk Thiès. ñooñu ñoo xam santé ñoom ñoo xam Sénégal ñoom ñoo bëgg Sénégal ñoom alal taxu leen a jóg. ndax kii fu ko neex dem moom Seydi mi. dëgg la. am na ñoo xam ne kenn du leen bàyyi ginnaaw bu ñu amalee njëriñ seen réew. li mu wax lu leer naññ la kenn du si génnee virgule. parce que parce que vaccin yi ñoom ñooy ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu dimbali. ñooñu dimbali ndax ñu mën a attan am kattan pour xeex xeex bi ndax euh, euh, maladie bi ndax virus bi bu ñu attaqué vaccin bi bu ñu ko amee lu suñu système immunodéficit suñu système immunitaire dafay daf koy xeex day xeex ak ak ak feebar bi. parce que li ñuy am doole loolu la vaccin bi di njëriñ kon képp ku ne vaccin bi amul njëriñ yow bokk nga ci naafeq yi. Mhm. de façon Sénégal naafeq kese. waaw maa ko wax man mii maa ko wax man. Mhm. ba ñu wax dara nag ndax pare na si si pare naa. Mhm. pour ceux qui m'entendent. Euh, li ci des euh, xaw ma nu ñu koy waxatee euh, rawuli gët xaw ma. li ci waaw li ci kanam rawuli gët li ci kanam rawuli gët. Mhm. ci xel c' un monsieur sérieux ku am xam-xam. Mhm. ci Sénégal te nee na nag li wax am na ñu ko xamoon. waaye li mu wax daf ko boo gisee mu génn di ko waxaat c'est pour mu leeral sénégalais ni kii nii mu leeral sénégalais ni dem leen ngeen vacciné wu parce que vaccin wu adduna bi bu ñu vacciné ñun ñëpp feebar bi day day gàllankoor yàlla moo xam kañ lay indi feebaram yàlla moo xam kañ la koy dindi bu koy dindi nag yàlla du claqué les doigts di ko dindi yàlla dafa am fu mu koy jaarale mhm. cay doomu aadama jox leen xam-xam kon nangu leen ay Aliou Sow pour pour finir ñu dem si libération donc euh, mu mel ni daal dëkk bi fi mu nekk nii cin la gu nga xam ne amul benn ruq bu sedd parce que libération def na ci xëtam gu njëkk enquête sur le trafic des passeports diplomatiques sénégalais la DIC euh, ouvre la boîte de Pandore donc mu mel ni jamono ji ki nga xamante ni mu ngi wuyoo ci turu El ji Yadji Condé euh, daal dinay takkal bu baax a baax Boubacar Biaye et Mamadou salle de Benno ainsi que le maire Sadio Danfaxa Eh ci wàllu lu bëgg trafic de visa amoon na fi trafic de visa amoon na fi faux billets mhm. ci ci assemblée nationale ay personnes illustres lu nekk nga fi waaye li ma wax léegi nii léegi léegi boo liiraatee lii lan nga ciy wax li ma jot a wax ci léegi ci Sénégal ne cin di daal amul benn ruq bu seet fépp la <laughs> féppay baax seet dañuy jéem a dóor rek ku nekk yaa ngi jéem a seet ci sa position nan nga mën a defee pour lekk alalu réew mi mm. dañu soxor dañu bon te dëkk il faut ñi koy ñi koy jiite ñi ngànk réew mi il faut ñu doon ay nit ñu baax. Mhm. pas ci baatin Zahir aussi dafa am sol te ñi ñi dégg gënk réew mi ci Zahir laa wax. Mhm. ñooñu laa bëgg ñu doon ñu baax ëllëg te dafa am ay prémices yoo xam ne. Mhm. dafay dafa dalul sama xel moo tax may am lu ma metti parce que dafa am ay attitudes yoo xam ne nit bu ñu ko amee Olof njaay da daan wax. ce, ce, cette expression que je n'aime pas trop. Hmm. Euh, euh, alkaati du bàyyi door. Hmm. ndox du bàyyi yoonam. ndox du bàyyi yoonam. Hmm. comment. ca liif ba la. eh bien ñoom ci seen bopp yenn jikko yi dañ ko. dund juddoo ko màggee ko. Mhm. te dañu war a changer pour développer réew mi parce que on aura beau avoir des ingénieurs des tout ce que vous voulez des hommes expérimentés lépp mais bu fekkee ni yéene amul pour seen réew. Mhm. dañuy sonal suñu bopp dans vingt ans on sera encore là on aura soixante dix ans quatre vingt ans. Mm -hmm. et eh bien vous verrez ce serait toujours la même chose dëkk dafa am nu ñu koy defaree. Mhm. dama il faut que vous alliez et j'insiste lire le petit livre de. le petit livre rouge. Mmh. de Mao tse mhm. bi ñuy tënk ñoom moom lan la bëggal Chine li tax nan la xalaatee pour Chine mën a développer. Mhm. ci livre bu ndaw la livre bu ndaw la petit carnet la. Mhm. boo leen ko liiree di ngeen am di ngeen comprendre gis nga nit bu bëggee ambition. mu leer ci boppam mu bind ko askanam ànd ci ñëpp d'accord. dëkk boobu day dem kanam. même Hitler donte am na lu mu jëfoon ci lu bon benn yéene bu bon bu mu amoon ci ci ci xeet Hitler li mu bind ni mu ko defee. Mhm. il a développé l'Allemagne jusqu'en 1933 ba quarante pratiquement 40. Mhm. Hitler a développé l'Allemagne en cinq dem leen ngeen xool Allemagne tali yi ki indi woon guerre mondiale kooku moo defar tali yi dem leen ngeen xool Allemagne tali yi. ku dem Allemagne ñëwal wax ak man seen tali yi nu mu jubee nu mu baaxee ñu ne tali yi kañ lañ ko def ñu ne tali yi am na cinquante ans soixante ans. Mhm. les tali pavé sur cinquante kilomètres da ngay dawal benn baaraam ngay dawal. Mhm. ndax nekk si jàmm. tali yooyu bi ñu koy defar ki ko defar kooku moom moo indi woon guerre mondiale Hitler. Mhm. il avait développé le pays xanaa xëy na kay après la ñu bombardé Allemagne bi bi Hitler capitulé bi gars yi la coalition allemande si la ñu si la ñu bombardé yàqaat Allemagne ñu obligé ko. avec le plan Marshall waaye dañ ko defaroon ba mu mët sëkk Hitler dafa defaroon Allemagne avant muy commencer guerre gi xëy na guerre gi loolu la pour yoon yombal yoon yi. Mhm. yombal dëkk bi facilité lu bari. xëy na bi ñu bambaane Allemagne nag après le problème am donc réew dañ koy defar au lieu ces trafics là on voit des députés. Mhm. yoo xam ne dañuy trafiquer ñi di jaay ay sàcc ay di jaay drogue. Mhm. ñi di jaay mais Moussa si Lo lan la fi wax. waxoon na fi lu doy waar ñu ngi fi dañuy jaay ay drogue donc dëkk bi moo moo baaxul mhm. dëkk bi dafa am ñoo xam ne ci Zaïre il faut ñu jëli leen fii mhm. moo tax sëñ Mountakha sëñ Mbaye Sima yaa ngeen yaa ngeen fi yàgg euh, yéen yéen sëriñ sëriñ euh, euh, Thiaw Ablaye Thiaw mhm. tout le monde sëriñ Canaba bi Seck et cetera tout le monde sëriñ Ñaseen waa Léona Niassène il faut que ngeen jéem xool nan ngeen di mën a gisee yéen ci seen biir pour tënkal ñu ces gens là yoo xam ne ñu ngi rende suñu réew mi di toroxal doomu aadama yi nit ça y est mhm. gis nga nit juddu pour di xiif. nit warul juddu ah, pour di ñàkk lu mu sol wala di perte sa dignité. Mhm. nit dafa war a juddu pour di lekk di naan. am le mhm. minimum incompréhensible. waxuma nga am deux cent. man ma am cent cinquante. dëgg la parce que yàlla mënul yemale équilibré wul. waaye yàlla minimum incompressible boo xam ne nit ki daf ko war a am. doomu aadama ci juddoom ba ba muy dee. ayca am na solo Aliou Sow xool ngay waxee dëkk bi moom dafa metti loo lool lool. buñ ko defarul seen julli yi ngeen di def mhm. seen chapelet yi mhm. seen kurus mhm. seen ñetti abdu yi ngeen di sol ak seen i koppati yi nekk yéen yaa ngeen di tas réew mi wallaay toroxal doomu aadama yi <laughs> loolu daf fi war a yéeme na loolu Aliou Sow nag il faut que Sénégalais am une conscience bu bees seetlu ñi nga xam ne sax dañu bëgg jël réew mi ñoom ban façon jikko la am parce que boo leen ko joxee ça sera du quoi du bis répétita. waaw <laughs> am na solo. métti na xëy xëy ndax jikkoog borom pax. <laughs> yéeme na en tout cas euh, li nga wax fii am na solo bu baax a baax et ça se voit xol ngay waxee Sénégal dafa métti lool mm. lool lool yéeme na lool mais bon yàlla baax na Aliou Sow ñu lay jaajëfal ci liggéey bu mucc ay bi nga xam ne def nga ko ça se voit xol nga koy defee mu nekk lu am solo ñuy jaajëfal oh, la maman Henriette la sista Néné maman Khady Seck maman Gisèle Goudiaby Assane Gueye ak suñu papa euh, Ousmane Sow ah Sow la donc euh, yaral nga ñu suñu waa ji bu baax a baax mu bëri xam-xam lool ko jox